وآمنا ونا إله مريد ذاك النظري isaaf nag ak ma ak ak ak ak ak ak ak naa ilaah muy safa ak marwa góor ak jigéen la woon yu bëggante woon ci seen réew amuñu moye bu ñu mën a jotee ñu daje màkk mooy fa yàlla yàlla soppi leen ñaari xeer moom la ñuy jaabanteen di ba tey fa la Alaaji Malik nag jëmoon fa la góor ga jëme woon xale ba pour rey ko ñu ne ko du fi amee mu taxaw nag mbokk yu wër ko mu ne namay def ñu digal ko nag lii nu commencé tey nu dem nag mën na maa dem de laa tafaal bi saa abadan laa tafaal bi saa abadan kay laa yara xaadatin fil féeri lam nanay def ñu ne ko nam di li xaybara fiiha sayba jooju dañ ko tarxim tarxim mooy abrasé saybatu la woon yaa saybatu la alaaji Malik woyoon dafa woy na nam li li xaybara fiiha yaa saybatu peese ko poids bi ëpp mu wëlbati ko xam ne yoon may na ko mu adressé mu dog yaayu mu naa daaja sànni daal di woyaat na nam li li xaybara fiiha saybatu taatombe gi ëpp mu xam ne am na droit tarxim tarxim mooy wàññi ca mujj ga mu dog taatombe gi wacc daal di woy na nam li li xaybara fiiha saybaka yi na mu pay sa bi mandaxa mi waaw wallaay kon nan la nga xaybaar xaybaar yaa saybatu fiha nekk na ca dëkk booba kaayinatun xam borom xam-xam bu jigéen seetlu yàgg na ci àddina pombalu ak ak ak ak kenn ki waaw loolu yooyu yooyu daan nañ ko def ci arab ya ah sa góor gu baax ga am na ku ñuy wax maa wiyatu maa wiyatu góor gu ñuy wax Abu Sufyaan a ko jur Abu Sufyaan tuddul noonu dafa taawloo Sufyaan Harba la tudd Harbi ku ñuy wax Saxraa ko jur Ummiyatu jur ko Abdi Sanzin jur ko Abdu Manaab Xusay Kilaab Morata Kaab Looy moo jur ki ñuy wax Maawiya Maawiya ko amoon baat la ku bari wërsëg la woon ku tabe la buur ñaare bu nandalee ku ko gën a yolam loxo bu sàgganee mu jël nguuram ci loxo li aliw yeyoo yoroo nguur geeg li muy ñemeñ ñemeñ ëpp gu ko maw yi ëppoon wërsëg dàq ko tàllal loxoom moo tax ñu sampata ba aliw dem àlaakara bàyyi koog yi fi ci loxoom maw yi moomu nag laa lay wax ki ko jur ne na ñu cofeel day dog ne nooneel day doon maw yetu moomu kat moo jur yësit te loolu yësit bul fàtte ne moo posan lu asa moo rey lu Useynu ca Karbala maw yi def naag aliw ay offensive yu ma la bëgg a nettalis yu bari xeex yu métt bindante leetar yu ñaaw ba aliyu dem àlaxira bàyyi ko fi mu siif affaire bi yokk maa wéetu moomu papaam mbokkam Moustapha la Abu Sufyaan la tudd Abu Sufyaan boobu ngay dégg attaquement bu nabi Musa dafa Quraysin mooy général Quraysin def nabi Faas moo jur maa wéetu mu def aliyu Faas moo jur Yasid mu def Asan ak Useynu Faas ma ñëw de seen baay dafa amoon xarit bu góor bu tudda fakihatu fakiha jëkk a takk yaayi maawiyatu yaayi maawiyatu hindal la tudd fakiha ko takk fakiha borom wërsëg la woon arab dafa wuuteeg nit ku ñuul arab ku fa amas lëf doo ko nëbb da nga koy wane soo jubee dëkkab arab te mën a jàng mbaa nga xam seen jikko doo fanaan biti doo doo dëñ ndax ku fa wërsëg ku ne dina am loo def signal signal boobu ñu ngi ko tuddee naaru xeraar safaru gan safaru berndeel gan ku fa ëppale ku ne daa samp maaw ci sa diggi kër mbaa nga tabax benn pied ci sa diggi kër am couleur booy taal couleur boobu kër gu mu takk ci kër arab borom am na million ku fa am million nag daa ko taal loo si jublu ku fa ak si guddi te amul foo dugg dugg sa kër ku fa ak si guddi te lekku lekk sa kër ñam bi du teggeeku néegi dañ koy lal rek préparé góor googu nag di fàkkiha aleelam dafa àggoon ci war a taar naaru xiraa mu taal nag naaru xiraa di denc nag ndaw si war a jur waa ji di xariti bàyyi waa jooju mujjee jur waa ji ci ndaw soos def nag naaru xiraa tabax këram ba mu pare néeg yi mu rangale leen néeg bu ne lal pajaas matla duus cabinet reer ca bunt ba gardien bu ko dul ub heure boo ñëwee doo nuyoo doo jàmm sante da nga choisir néeg lekk dugg tëdd moom nag dafa wàññi woon boppam ba berul néegam ndax néegam rang ci néeg yi benn guddi genn gan ak si guddi am na ci droit parce que moo taal naaru xiraa mu dugg ci kër gi reer reer ba noppi choisir benn néeg ndekk néeg bi néeg góor gi la góor gaa ngi génn doxi soxnaa ma ngi ci biir mu ñëw ubbi tabbi ci biir tiim soxna si tiit ne wal bit di génn ubbi bunte bi moo góor gi ak suñu daje ci bunt bi am na ngor gu toll ni waxu ko dara ñu rombante rek mu dem seetaat beneen néeg seetaat beneen néeg seetaat beneen néeg ba gis néeg bu liibar mu dugg ci toog góor gi dugg fëgg soxna si mu jóg toog mu ne ko waa ji fi génne kan la mu ne ko fan mu ne fan fii ci néeg mu ne ko du fii de fii de kenn génnuwu yóbbu ko sax ngoo si mën a yegg buntu bi kenn nettaliwu ma géntu ma ma gis koog bot nga naan laan mu ne ko fii di dugg ci waaye danga rek sa sabab ni soo ko guddi ga ba fajar ndaw sa takki bagage na dem fii bopp mu lan fene du ko fayee mbokk yi lan fene duñ ko ñaan baat buñ ko ñaanee baat ndaw sa day ñàkk xale ya ñu ne fa teg waaye nag bàyyi xale léeg-léeg moo woo xale bi ne ko doom sa njëkk li mu nu jungeel bu amee rek wax ma ko ma fay ko ale dem moo ma gën a gën yoon te kaay yi si boo xam ne ku mu fekk jàpp te bëgg ma mukk gàcce la li mu def doo ko ne waaye mën naa ko mën na ko bàyyi bàyyi boobu wax kii dafa gëlëm xamal li mu yàq mu def ko ko ñetti weer xale bi dëggal saxal li mu nekk rek mu yónni ci dëkk na ko sa jabaram nit gisuma la léegi nag dama bëgg nga wax mbaa ñu dem ci kayin bi mu àttee mu consulté boppam ni d'accord mu ne man li ma gis lu ma wér ni ni te génn ci léegi maa day na moom ñu ne kon nag sunu alal bi ko bàyyi noonu dem rek Dakar la ñu kayin baa koy jaay wala wala mu nga bama wala Tambacounda waa ji góor gi yëgal ay jigéen jigéenam yooyu nit keneen ci jabar jabar di yëgal ay tànn yi ñoom ñuy boole waay dana ku ne sa par bi sans jox nga préparé yóbbal bu baax parce que ay naaga yu baax yu gileem ñu jëm ba ma ñeen di jaay ci biir côté ñeen di jaay ci biir côté yu ndee neexul bu ñu demee ba ma ko bi lay gàcce bu mu dee kilo ñaari kilo ak waa këram dafa ñuy tëgg ñuy naan attray ñu ne lay pour ñaari kilo dafa ñuy tëgg ñuy naan attray ñu dafa doxal rek bu guddee ñu faral bu subaa ñu dox bu tëgg xale fi bari ñu jëm ca kaay bañ demee bañ ñu suba ñu àgg jëm ca keroog ndaw si sawaru hind sawaru bàyyi bàyyi ko xel gis moroom yi ne ko xooloo mu bay mu fudd opp ñu dem ba dem ba kawal mu ne ko doom su mënoo àgg yëpp nga loolu wax naa yow yëpp weer ca biir Dakar nga tësax ci baat ba réew mépp dégg na génn naa te sa naaw la yaa am sox yii ma ko doon sax bu fekkee li ñu wax dañ ko laal ñu ñëwee ñu ne dinaa la rey te gis naa lépp ci suba bëggee sawaro ci suba ñu am xale ba ree na ko bàyyi sawar moo wax nga dëgg waaye na koy sawar nii rek rek ci ñuy fekk bi lay bu doon yàlla du ma ci waaye nit bu mu war a doon xam-xam dina juum dina jox waaye bu day bu doon yàlla bu subaa ngaa ndam te ñoom dinañ waaye daf ma wóor ne mbindeef lu mu mën mën juum mbaa mu jaawale loolu rek ma jax mu ne ko wax nga dëgg dinaa leen jox sax balaa nag kenn naa seetal ñu nangu sart bi buñ ko nangoo seetal mu ne leen ñu ngi àgg kat ëllëg gaa yi sama doom nag tiituma ci xam naa yëpp durus waaye kaay yi bi ngeen di seet li ngeen koy naw naw mbindeef la mën naa juum mën naa ko man na musuma fii waaye dinaa essayé ba mu jaral bu ma jaralul du ma seetal ñu ne ko d'accord mu dem seet xam nga ay bokkam rek keneen ñeneen teg heure ba jot ñu war a dem ñu recevoir leen kayin bi yëpp leen préparé moom ba mu jugee bay dem yëpp lee gars yi ba ci buntu dafa wàññeeku duggaat ci kër gi mat sa doon ne tàndar ba ba mu set mu dem ci gileem ba mu waroon rof ko ci mbuñu ko ndax di rek su ko ndaw si xamee te waxuma ko comme lu ma téléphoné yëpp lee gars yi dem ko ñu naan ren ñu ko jàmm sant ba mu yëkkati loxoom ne ko ñu ngi ñëw ci la waaye nag kenn ma àgg ko te te nëbba lu bëgg nëbba naa la ku ci génn ka mu door loxo bi ci gis ba mel mu si gëree ne ko sam réewum fi kum rek foofu tam rek te muy ko naaw ko soo yéexee dindi woo ko mu ñu ma fokkal ma ne ko fa fa gëree daal dafa nee naa gan yu kenn mu soxla góor yu kenn dëkk ñu ñu jógee ci néegam yàlla dëkkaale fi yàlla ku jigéen ku ci këram tuuma la dafa juum ci tuuma ci waaye laal jigéen jigéen doon ci ngërëm ci yéen yëpp yu ñu ko parce que bàyyi ndaw si fokki jigéen foofa nag la fàtte xaaj yooyu jëkkër bi rek rek ne ko jiital naa la tey sama kanam naa la jigéen ñi kon li nga defoon ci ndaw si naa ko la ñu lay mayaat ko moom mën a ko ko sëyeeg moom mukk ba yaay comme alors nga baax la mu ñibbi am ñaari fan oolu Abou Soufiane ne ko ndaw si ma tàggoon moo gën ci góori àddina te sama xarit bi mu ne ci kenn dëkk mu dem takk ko nag gis ci waa bi di ñuy wax maa bi Thank you. maa ngi tudd rek Aliou Diamano moo ko ñu Ousmane def ko ñu def fukki yooyu naa yëngu daw ci guddi yóbbu baaraam yooyu ko ak bu bokk Ousmane dem pël ci quelques kilifa ñu kontaan Aliou ay maa ngi tudd bëgg ci dara maa ngi tudd mooy gouverneur Sénégal di Sénégal bu Ousmane mu mu mu yëkkee naa Aliou moo feebar def lool ci la may man maa ngi doon baal bi de kenn ko jëlee ci baal yi ba ba dëkk bi ñu ne ñaar yi foofu yaay bëgg yàgg ak ñu fan dañ ko doon wax ci maam yéen mu ne ko ñun ñëpp ba dëkk de commandant yëpp ak doon nañu leen mu changé poste on ko digal nag ko maa ngi ko amal loolu te kenn ñu ñetti ñun ñaar lañu ko parce que ba ba mu nangul la boo ko jaaree doo ko fan saa dina muy def ñëpp laata da def convocation tëgg convocation yi def ko ci am bu yóbbu ñëpp ñëpp wuy ndawal maa ngi yow maa ngi leen na ko budul woon ak bañ ko rey loolu dinaa la rek suñ ko fay fan door koo yebal foofu am nga dëkk kayit bu balan bu weex dara ñëw ci dox keneen boobu ñëwee dëkk bépp dañuy génn loolu nag ñëw ñëpp da ngeen di déglu kontam ñu xotti fekk kayitu ne ñu xam ne gànt ci ginnaaw la ci la yónnee nag ci Aliou kayit na ko jaay rek dafa def loolu laa jot ñu defar ñu defar di defar prix nu ma jox daal ci diggante gàncax gi naa ne mu doon laajte bàyyi loolu loolu maa ngi yëpp mu napp ko xale yi fokk ko ci seen loxo ku ko ñu ci réew ko ci karabala yi si doon yi taxaw kon nag daa ko suuf yaa ma doon dignité projet bi ñuy tegal na bi bu jëlee maa ngi mu def ko doon mën a ali mu jëli mu def ko doon mën a ko ko seenu kon noonu rek day dem. kon nag arab yaa bëri na la ci kaay moo tax ba ko mu tënk ne day rey xale ay problème bi daal mu ne naka fexe maa ñu ngi liggéey ba porte ñu ne ko ndaw ni nan bi ne xaybar la nañ lekk xaybar mu ne ko ñu ne ko yàlla fay ko yaa nekk naka xaybar taali bi bu waatee mu ngi def mu ne bu ñu mi xaale coow li naa moslami li nga di man xaala sëri sëri muy ko nekk li na fekk na buñ ko dëgg la ko ñu ko ñu ko ñëwaat boo ko ñu ko ñëwaat mu ko ñu ba fekk bu ngeen ñoo ko baax a baax defar yóbbalam yeewu bi leen Abdoulaye bi daal fekk mu ñëw fan nga xale ba préparé nga woon ci ci mu nekk léegi ñaari nit ñu ko ca dem Xaybar ñu ne laa di Malick ba ñoo gee Xaybar ci ku ñu dem mu ne xam naa ka ñu dem xam naa lañ ko wax xam naa la wuleen digal ñee koo kay kañ ndigal lañ ñoom ñëpp tubaarkalla taabal gi ñëppay awandoo te dara sooxewul kar tubaarkalla sanal xaalaqin wallahi xaalaat ndaw saay wax فكم دية فكم كنتم تدون دية xaaloo góor ñaa ngay tontu ndaw sa asratun min anniami fi l abali la ilaha illa allah sidi haj mari jazaahullah xayran àgg nañu ñu nga toog ndaw sa laaj ne leen lu leen tax a jóg wax nañ ko li leen tax a jóg góor gu baax gii la nattu dal daa wéetoon mérét ne boo amee fukki doom rey kenn nag am na fukki doom yu bëgg a rey kenn nag rey gi noo ko ko tere dafa mujje doon aada ci nun nu tak nag di seet ku nu mën a jaarale fu doom ji dul dee te yàlla kontaan ñu digal nu la leetar bi ma doon jàng sànq mbokk mu baax ko bind bu ñuy wax Badara Dieng yàgg na yëngatu moom it ci lislaam bi ci ndimbale nit ñi ci jàppandal lu jafe kii sayfu yu la bu ñu bind nee na mux ni yu la ci boole ñaar ñi ak law la ko mag ñi daan wax dañ ko daan def gàllaaj mooy bàqara ba naasi saar wu ne première aaya ba nga jël ko ak ba mujj ca aaya ba mu nga dale ci liif laa miim salikal kitaab laa rayba fii udan lil muttaqin kookoy aaya bi jëkk ci bàqara mu ñukk mu ne fa ñukk nag cent deux cent quatre-vingt quatre aaya ya dali ci amana rasulu bi ma unsila ilayhi min rabbi wal muminuuna kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufriqu bayna ahadin min rasul وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطتنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين noonu la def saar wu ne ba ci suuf mun a xoloon su bi rabi naasi ne minel jinnati waa naasi def salaatu ala nabi ca ba ay di xew daan nañ ko takk gàllaaj ci dem ciw ay yooyu ñaar nag la liggéey lu nii ne fu ñu demati ci mbooloo mi siiwal ko a pour ñu yëg ko li ñu koy wecceekoo nag xawma ko waaye ki ko fi indi defe naa ñàkkul mu xam ko yow yaa ko fi indi say fii bu fukki dërëm la okalam bi juróomi dërëm la waaw yaar yi nga ma fi yónnee nag ma jël ko ku ci bëgg nag na nga toog fa ngay toog bu bu gaa yi dee woy nga tàllal ma loxo ma fekk la fa sang nga wax muy jigéen muy góor kenn bañ a yàq jàng yi waaw góor a waay jërëjëf muus nga ngi yor leetar yéex nañoo taal jàkkam lool te mi mu daara ko jëkk a taal te mi mu daarit dafa dox cim réew rek lu tukki baaxe gis wi diw diw gu ñu def ci pot taal ko mu tàkk mu ñëw na lii bu ma demee ca jàkk ne bi ji def ko sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw rek fekk jàkk ji tàkk ñu ne ko ku mu ne leen ku def lii ñu ne ko te mi mu daar mu ne ko leeral nga sunu jàkk yal na yàlla leeral say biir àddina ak àllaxira ne tey jàkk ji ñu taal moo am ca leer googu xaalaat ndaw saay wax xaalaat fa kam diyatoon ni Maodo waye xaalaat fa kam diyatoon kuntum tëddoona biha ñooy tontu xaaloo lahaa asratul abali min niami du noonu ma ne nag sànq xaalaat ndaw saay wax fa kam te doona kuntum diyatun fa kam kuntum te doona diyatan xaaloo ñooy tont ne ko asratun min an niami fi l abadi xale bi ngeen bëgg mu sooyee te yàlla du mer ñu ne waaw mu ne maa ngi leen di laaj lu jiitu tey ku accident masa dal ci yéen ba mu rey góor su góor lu mu daan joxe dommage intérêt ñu ne ko fukki giléem mu ne kon d'accord ñibbi leen fukki gileem ngeen daan joxe ñu ne waaw mooy way wi fakam ana ñaata kuntum ngeen nekkoon tëddoona di ko joxe di yétteen muy demee fentre kuntum ngeen nekkoon di def bu ngeen masee rey xaaloo ñu ne ko asratun fukk minal abali ci gileem fukki gileem lañ daan joxe ku ci masa rey nit am lu mu leen digal nag ca foofa alaaji malik ne xam naa la mu leen digal xam naa it def nañu ndigal laam defuñu ko ñu ne alaaji malik la mu leen digalay lan mu ne lan da قال الله فرجه قالت لهم فارزحوا للأعلي فارزحوا من عجل وبها وهو سايمو كنتر دو boo ta amaasee yëpp mu baax tar daw wala tur doo min al akami du gën gu ndaw góor googu di Moustapha sunu borom angale na ay gor sa nabee sax yàlla tagg na ay gor sa njool Makka tax sunu borom yedd na ay nit digal leen te njool Makka tax. jegeñal de. takk nga lool. yonent bi dafa génn ànd ak lu bari ci saaba yi am fu mu jëm. yàlla dogal nag ku diiboon ab doxin la. am ci gaa yi ku njaxlaf lool. dog ca kanamam di waaxuy dem. jibril la yàlla yebal ne neel waa jooju na dox ci ginnaaw waa jooju la kenn du dox ci kanamam. القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول جزاك الله خير بلان دوخ ci kanamam buleen dox ci kanamam ñépp ci ginnaawam ba ñu demee ba àgg dëju am ñuy wax seen baat sut baatu Mohammed jibril la yàlla yebal na leen waajooju baat warlu sut baatam اي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقوله bu ñuy dem na ñëpp dox ci ginnaaw bu toogee na ñëpp wax ndànk am na ci ñoom ñu daaneel seen baat ñoom la yàlla tagga إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتعنا الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم النبي مش ناجي إن يدم أمك كي جوارد وخصمهم بلا القرآن جبل لي جبل لي يبلنك كوكو كندك جوار teggin àndul di joowar ak Moustapha bu leen ko joowarati yàlla ne ina lasina yunaadunaka min waraai usraati akasarahum laa yaqiluuna law annahum sabaru hatta taxruja ilayhim lakaana xayran lahum njol màkka gën gi saayir laak baatin mboolem yonent yi moo leen gën a ñemeñ noonu leen ëppale itam xam-xam moo leen ëpp yërmande saayir ak baatin wax naa la ne li ko yàlla adresse adresse wu ko kenn ci ñoom arab arab jamono buy wax ak yow di daaneel ci keef keef yéen miim topp ci liif topp ca wax ba génnu la ci yow la yem képp yàlla ne ko alam nasara lakka sadarak wa wadana anka wisrak lasi an xadda saarak wa rafana lakka sikaraka kon yaay xayrul alamina alam nasara lakka sadarak wa wadana anka wisrak lasi an xadda saaraka wa rafana lakka sikaraka kon yaa gën ñi wéy yaa gën ñi nga maaseel yaa gën ñi ñëw yàlla ko ne carrément looy tiit looy xalaat moo li ma mindalu ci yow doyal yaakaar xanaa du maa yaay sa dënn bi sa dënn bi ba mu yaa alam nasara laka sadarak maa yaal sa dënn ba mu yaa nga mën a muñal ku la tooñ mën a dëkkoo sab noon yemu maag yow foofu itam maa wàcc bàkkaaru xeet wi te bu ma ko bàyyi woon yow mu dis gan wa wadaana anka wisrak wisrak la si an qaddasa rak juróom-ñeenti keef yi moom rek la ko yàlla takkal amul kenn ku mu ko takkal am na sar wu ñuy wax laxsaab boo ko jàngee am na juróom-ñeenti kef yi fa yàlla wax na bi daf ko ni inaalal naa lakka suwaajaka lesiati tuwu joorowuk maamanaama maawa alayka wa banaati amika wa banaati amatika wa banaati xaalika wa banaati xaalatika lesi hoojarna maaka wa imraatan muminatan in wahabat nafsaha in habi nafsaha إن أراد النبي أن تنكى خالصة لك من دون المؤمن لقد علمنا ما فرضنا عليك كنتم تدون دية على كون واحد منكم قتل نفسا قطعا قالوا لها أسرة من العبال fukki gileem daal sunum réew la fa wér ci domaine fa intérêt ci ku rey góor su góor mooy fukki gileem mu ne kon nag fargi on retourné leen bu leen fi fanaan ñu nga déparé xaybar ñibbi si mag su ngeen àggee wa bihaa ci téeméeri giléem wa hu saa yi mu hu hu jooju Mustapha la bihaa jële ci giléem yàlla dellu kon wa saa i moo na ngeen wantale hu nabi bihaa ak fukki giléem ut leen fukki giléem teg ko nee fop Abdoulaye teg fee fop bulu dund ak bu dee dugal ci saako oo ku jub mu remiye génnee sànni